bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walaqibatu lilmuttaqin walsalatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa maulana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin wa radiyallahu taala an alabdi alxadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah ridan yashmalu zawihi min al aali wal atbaa'i wal ahibaa'i ajma'iin asxaab al fadila wa samaha al mashaayix wal ulamaa maaliya waziri daaxiliya mumathili raïs al jumhuriya wal wafdi al muraafiqi la asxaab al saada al sufara wa adaa al silki diplomaasi al muctamadiina bi bilaadina ayuha al xuduur al kariim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa baadu fa yushiduni wa nahnu fi ixtitaami faaliyaati lmaggal li aami sittatin wa arbaina wa arbaimia wa alf an uwajjiha ilaykum haasihi lkalima bismi samahati alxalifati alaam lilmuridiya alcheikh muhammadin muntaxa Mbakke xafidahu llahu taala wa ataala baqaahu fina maxfuufan bisixati wassalaamati shaakiran lakum bismi samaaxatihi ala mawaaqifikum annabila wa tadxiyaatikum almuqadara lilxuduri walmusharakati maana fi haasa alixtifal alsanawi li zikra alxayba albahriya li mawlaana cheikh ahmad alxadim allazi afna xayaatahu kullaha fi ibadati lillahi wa xidmati rasulihi sallallahu taala alayhi wa sallam wa kaana radiallahu anhu qad amara dawihi min al ali wal atbaaci wal ahibaai bi ihyaai yowmi thamin asar min safar min kulli aamin shukran lillahi taala ala ma ancama alayhi min annicami zahira walbatina bi sababi mihnati tahrib التي عاناها وكانت قد ابتدأت في هذا اليوم ستة ثلاثة عشر وثلاثمائة وألف وتأتي ذكرى هذه المرة بعد مئة سنة من رحيله من رحيله إلى الرفيق الأعلى فجزاكم الله خيرا وشكرا لكم هذه المشاركة الفعالة وهذا التداوم إخوة هذا المقتضى allazi jassadahu seyxuna ahmadul xadim alayhi akbaru ridwanillahi baaxil xadim fi alaaqatihi bi xayrihi min al aqaaribi wal mashayixi wal umara wal atbaa wal ahbaab wa xayrihim wa kaana radiyallahu anhu yaqulu fi alaaqatihi bi xayrihi min al aqaarib wal mashayix wal umara wal atbaa wal ahbaab wa xayrihim wa kaana radiyallahu anhu yaqulu almuminuuna ixwati walmuminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat wa min duhaa'ihi waj'al jamiiha ixwati wa nasabi fi rahmatin yowma sidaadi nasabi wa axrinaa bi xubbi kulli muslimi wa najjinaa min charri kulli mujrimin waj'al jamiica almuslimiina turra lanaa axillaa fa nukfaa duraa yaa maalika almulki yaa man jalla an qawadin irham jamiha alwara ya haadiyan radaa wa hakaza kaana maha xalqi llahi yuraaci fihim xaqa xaaliqihim wa yacbudu llaha llaha taala bil ihsani ilayhim xata wasafahu ahadu xiyaarihim acheikh seydi baba qaa'ilan acheikhu ahmadu nicmatun awlaaha haasil xalaa'iqa kullaha mawlaaha wa kaanat alaaqatuhu bil umara wa ashaabi sulta alaaqatan nasihatin wa irshaad wa tawjihin kama fi qawlihi li ahadin hiina talaba an-nasihata i'lam bi anna ad-dunya laa taatiika illaa bimaa tanzihuhu minka ilaa qaala wa alayka bi i'aanati ad-du'afaa wal fuqaraa'i wal masaakiin wal inkifaafi an al-jawri wa zulmi faman zalima nadima wa man jaara baara radiyallahu anhu wa ardaahu anna wa jaalana mimman yuxsinuuna al iqtidaa bihi fi taalimihi assunniya annafia wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu xam naa nag li njëkk a def mooy jéggalu jéggalu ndax baas bi tàng na lool li ko waral nag sëriñ bi da koo jëndoon mu jóge siin yaxa agsi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 fas yéene lépp lu ngeen nekk mu ànd ko ndax xam na ne sàmm ngeen ko na mu gën a rafete seen digge njabootu sëñ Tuubaa kon yàlla na ne yàlla fay ca na mu gën a rafete te sàmmal nu li ñu bokk ak li ñu boole ba bu seytaane am ci naw yoon inna seytaan fa aduwwan fattaxisuuhu aduwwan ginnaaw loolu yéen délégation yi fi teewal njiite réew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye ñi ci njiital ministre intérieur di sénéral Jean-Baptiste ak mboolem ministère yi nga àndal yëpp ak mboolem chef de service yëpp ak mboolem délégation yi fi teewal mboolem bànqaas yi fond réew yëpp sëriñ bi nee mi ngi leen di yóbbante ay cant ak ci ngërëm ci njiital réew mi ci taxawaayam ak mboolem ay jëwriñam ci màggal gi ndax xam na ne diggante bi gàtt na ndax juróom weer bëreegut waaye wane ngeen ci seen yéene wane ci seen taxawaay ba mi ngi leen di sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla suñ boroom eh, lii nga xam ne yàllaa ko ko dénk yu cooba dem yàlla na ko àggali ci jàmm te mboolem yaakaar ji réew mi am ci moom bay tas mi ngi nii itam mboolem ay jëwriñam te buñ ci tuddee premier ministre Ousmane Sonko nga xam ne ñoo def bët yëngu sëñ beeg la yóbbante ci mooy ak cant ak ngërëm di la di ko jeexale cant gi ci yow mi nga xam ne nag yaa doon taxaw màggal gi di ministre de l'intérieur ak mboolem ña ko ànduloo ñëpp ak mboolem ministère yëpp ndax lim nañ leen te limoon nañ leen ku ci ku ci ne ñëw nga fi wane si yéen ak sa taxawaay. kon sëriñ bi wax na ne sant na leen gërëm na leen te sëriñ Abdou Lahad Mbacké daa waxoon ne sëriñ Tuubaa nee na wa xaysuma xasanatil insaanu ilayka fahmathu bilaa tawaani saa su la nit ci defalee lu baax na nga ko sant fa saas te bu ko yéexee yéen ambassadeur ak mboolem membre corps diplomate yi fi teew sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen yóbbante ay ci seen njiit réew ya nga xam ne ñoon nga fi teewoon di nuyu baax nag mboolem yeneen formation politique yi fi teew di sant bu baax mboolem kilifa yoon wi ci seen taxawaay bu rafet ak seen jàppale ko ci liggéey Serigne Touba bii mu teg ci loxoom di sant di gërëm bokki taalibe yi nga xam ne ñoo wuy si ndigalu Serigne li mu jox woon ci bis bii ñu doon dundal muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar mu sàkk woon ñu ko ci santale yàlla. ci xéewal yu rëy yu bari yi koy dikkal te sababa woon ci tukkub géej gi ndax sant dafa bokk ci xéewal yi gën a màgg ci jaamu yàlla balillaahi fa'budu kun min ash-shakirin wa man yashkur fi innama wa man kafara fi inna allaha ghaniyyun hamid nee na bu ngeen bu ngeen ma doon leen waaye bu ngeen gàntoo mi ngi leen di ndig ak ci mbugalam la in shakartum la azidannakum wala in kafartumoo inna asabi la shadid kon nag moo ngi sant yàlla ci fekk gi ak tal gi màggaayu ren ji nag mooy defoog téeméeri at ginnaaw bi Serigne Touba ñibbi see Touba ginnaaw dund gu barkeel goo xam lépp mu ngi ko jeexal ci rafetal diggam ak boromam ci jaamu ko bil imaani wal islaami wal ihsaan jeexal ko it ci rafetal diggam ak jaamu yàlla yi ci jaamu yàlla ci ñoom ci gindi leen ak defar leen ak jëriñ leen wan leen baax tàggat leen ci ànd ak ñoom di ko dund na ko yonent bi sallallahu alayhi wa daan dunde ak saxaaba yi daan woo ñëpp ci wéetal yàlla ak jaamu ko ci sunna wax na ne adduhoo ilal ilaahi bi tawxiidi wa ma raaytu anhu min mahidi adduhoo ilayhi bi tafaquhi maha may leen li xayrihi wa kulli qabila adho ilayhi bi tasawufi maa makaarimi al axlaaqi wa huwa chamia ànd ak taalibe ci taxliya leen ba ñu set wicc taxliya leen ba fees del ànd ak bokk ci yërëm leen yiir leen defar leen defal leen ba kenn bëggul di moroomam ànd ak jàmbur ci jegeel leen ak jëriñ leen ànd ak buur yi ak warum ndombay tànk yi ci gindi leen ak laa biir leen ak dig dig ak dig leen fu ñu toll ñuy sax ci njub daan leen wax ne ku ci àdduna jox dara na xam ne ci moroomam la ko nangoo tey dana ko masa nanguwaat ci moom jox ko keneen kon ku ci yàlla jox doole na ca sàkku ngërëmam te moytu ci ak tooñ ak làqu ko tooñ ak far ko tey dimbale néew ji doole yi ak yërëm leen ak bañ a xañ kenn àqam daan na leen wax ne man zalima nadima wa man juwaara baara kuy kuy tooñ da ko rëccu te ku jëngit di nga alko lii nag Serigne Touba mi ngi ko digaloon buur ba Jolof Sàmbale wu Faal kon nañu xam ne fukki fan ak juróom-ñett ci weer safar ndax at mu jot bu ma agsi nattu yi yëpp dañu koy ful ci metti metti ak i tartar waaye lépp mu di ko dékku ndax jom ja ba ci atum masasin ci lañu ko xamal ne natt yi jeex na li ci sa kanam lépp ak may la ak xéewal te day yokk at mu ne ñu natt wi doon yokkoo fadur wala wa nafru jaa'i lor dem na xéewal ñëw na wa fii kulli shahrin zaydu rabhi wa fii safar nee na weer wu nekk ak weer safar wu ne yàlla day yokk samay ton wu mu wax ma ne may ko yàlla may dafa lott ci sant ko dëgg dëgg sant dëgg dëgg sant xibaatuka lii ahayat ahayat shukuriya fil kunhi lakal hamdu yaa fardan ta an shippi mu wax na cant gi da koy jéem mënu ko xawaltu shukurallahi fii turabi baxda jamili baxda jamili turabi moo tax mu war taali bi yëpp ak képp koo xam ne mbégam sa mbég la weera safar wi nga xam ne ci la génn dem ci géej gi atum jay sasin moom lay wooye safarul xuruj dana yu yàlla feeñoo ba na ji ngir ci le may yi dikke dana ko wooyu itam safarul jamili ngir mero jamaal yu ko yàlla feeñoo ba nattu ba nattu dem xéewal yi dégmal ko moo tax mu wax ne yaa man jaala bi fadlika wa juudika lañu koy faye kon baax na ñu xam ne lenn ci nat lenn ci nattu wi nga xam ne suñu borom nattoon ko sëriñ bi muy al al anasur arba arbaha te mooy suuf sawara lu ma ñeen fukki fan fa sahama fa kaana min al mudahadin fa taqamul xuut waxumu limun yonente yàlla yuusuf am na toon ci biir suuf la jaare nekk na ci biir suuf ab diir ak nekk ci biir kaso ba yàlla dogal mu génn ci ak ndam am nattoom ci sawara la jaare qaalu xarriquuhu wansuru alihatakum in kuntum failin réew yu bari ci ngelaw la leen yàlla di alake wa amma aadun fa uhliku bi riixin sarsarin aatiyatin yonente yàlla Suleymaan yàlla dafa tàggatal ngelaw ba ko bëggee rek ngelaw def yonent yi naka jekk ci ci la yàlla di xéewale ci lay natoo ci lay mbugale fu kullan axasna bi sanbihi fa minhum man arsalna alayhi xaasiban wa minhum man axasatuhu sayxatu wa minhum man xasafna bihi al arda wa minhum man axraqna aliyal baatina may googi nag moo waral nit ñi dëgmal ko wallahu yansur nii walxalqu tatbao nii fil barri wal bahri zanaqin bila darari ñii di wut si barke bu adduna ñii di wut si ak njub wa kullu man ahabani aw maala ilaya farzuqhu hudan aw maala ak alal هدايا لي بردايا دون اشتكاء بركتي بركة لا تنصرم توشيعتي كمددي لا تنخرم sama barke day sax te day wéy tëbb yi ma yàlla di tëbb ma di ci jubale nit ñi lil barakat nee na ku ñëw ci man ngir tawat ju ko dal eh, eh, saafaral tawat ja wa tontu kull man li ajli jahri lin qaada ilman maa hiya li jahri ku ñëw ci man ngir réer joo ko xam-xam bu ko faral ak réer ba faw jàmbat yëpp da ko daa faj ci mbóot mi ko yàlla jox mu dellu waxaat ne ataani zikral xakima saaliba lii lii hudaahu wal ida yàlla jox na ma alxuraan jox ma jub njub gi ci nekk notal na ma samay noonu mu ne yàlla jox na ma alxuraan jox jox na ma alxuraan jox na ma njub gi ci nekk notal na ma samay noonu suñu xoolee sëriñ bi ñeenti élément yooyu yëpp yàlla nattu na ko ci ndax yóbbu nañ ko ci géej gi bu yàgg asam si di taw ci kawam mu ne ci géej gi di tumuranke fa man yulqi nii fil bahri raw man li xurbati fa lii min ilaahi rawdu fii sëriñ bi nattu nañ ko ci géej ndax ca ba batax tax yoon wi mu mu di mu di ko tuddi al xaybatul bahriya yonent yàlla Ibrahima dugal nañ ko ci kam ne ko xul naa yaa naaru ko ni ci ay bàggam ko ne ko buñ yàq sab liggéey yonent yàlla yonent yàlla Moussa yonent yàlla Souleymane ci ci ngelaw lañ ko nattu ko ca gànnaar fa ngelaw la gën a bare gën a tàng moo tax nattu nga loolu yàlla defal na ko ndax wax na ne xaddamani llahu ala alxuddaami bil mu musabbitil aqdami mun na yàlla jiital na ma ci mboolem ñiy liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa ci barke moom mi nga xam ne mooy jàppal gaa yi seen tànk di dëgëral moom mi ko yàlla may ku ko xam bari ko dagg moo tax Sëriñ wax na ne radiya anni man yàlla gërëm na ma man it gërëm naa ko mu ne ma jëlee sama mbóot mii te nga ñoŋal ko mu dellu waxaat ne wa qaada lii wa lii qaada na wa luy dindi lëndëm lëndëm yi ci xol moo tax damay leer xolub xolub murit bi sóobu ci saahir ak baatin loola waral defar yomb lool ci keppaar moom Sëriñ Tuubaa bu jàppee ku bokkam ya fab sànni fee bu delloo ca bokkam ya moo fee tane sax di tarxiya mbooloo mi moo tax njabootu njabootum gu mag gi Serigne lu Mbacke dégg naa ci kàddoom mu ne waxoon na ak Cheikh Mahamadou Moustapha ak ak Cheikh Mahamadou Fadi ne leen seenu liggéey ci nit ñi jëm ndax yàlla damaa damaa liggéey suñ borom ba mu bu kenn tumuranke seen kër def leen fay bu fa kenn xiif mu teg ca na mbooloo mi ñëw ci yéen du weesu ñaar ñii kuy laaj ak kuy joxe mu ne ñaar ñooñu rek ku leen xàmmee yàlla jëppi la waaye nag yàlla def na joxe sëriñ Tuubaa nag xéewal la goo ne ku ko yàlla baaxee war ngaa xam bu baax li yàlla defal te fonk ko te bañ koo boole ak dara ndax yàlla mi ko bind moo ko defal fitra salima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 ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير في سفر خماني فلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في ألفا نجباه noonee la nekkoon ak i waajuram ba jaaxal leen ci ndawam di taxaw guddi di doxe doxe noo xam ne miinuñu ko ci ku toll ci atam bu ñu tollee ci xàmmee tegu ci yoon wi ko ay waajuram sóob ci ci nangu ak sàkku xam-xam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam def ko wasilam dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun li samadi fu ko xetam xeeñ mu war ko fa loolu waral fi mu jaar fépp ak mbir yu mu jël yëpp ba keroog ba muy dajeeg moom sallallahu alayhi wa sallam di jaayante bi mu jural ko bakkanam ak dundam ak léppam billahi lasi laa ilaha illa huwa wa mamaati xarakaati wa sakanaati maha sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam mu jaral ko ñu ko réewam ak ñooñam ak ba mu nekkee ca la mu waxoon ak Cheikh Ibrahima Fati Abdoulahi Ayman ne ko tubaab yi daf ëpp sax mosuñu ko dégg ci man lu ne mu jàng mu jànkonte ko fa nattu yeneen ñu teg ko ko mu jaayanteeg boromam ne ko lu nattu diis diis ak lu mu tar tar dinaa ko dékku boo ma sàmmalee ruugi di wan yoonu ngirana ci noonu lanu xàllal yoonu mucc tey ak ëllëg kon moom li mu nu andil du ay théorie ak ci xalaati neen waaye dafa sóobu ci yoon wa ñëw ànd ak ndaw ñëw ànd ak solution ci sunuy jafe-jafe ala kaddin bada lii qabla an ara ridan mu abada nee maa ngi leen maa ngi leen di yee di leen xamal ne toog naa lu ma ñeent fukk yoo xam ne maa ngi nekk ci diggante lu mel ne sukuraat ak naju bàmbeel lu ma génn rek dugg ci ba ca des lépp di wane fi mu jaar door am li moom ak xeltukat yi ak wóorom xam-xam yi muy ni ñuy fexe ba defar nit ku baax ak nu ñuy fexe ba defar société bu baax te mucc ay dale ko ci ñi fi jiitu woon ci ay civilisation ba ci tubaab yu fi tubaab yu fi mujj ñoom ñëpp loolu rek la ñuy jéem indi solution te mu tëleen picc ndax lool yàlla mi ñu fi rek moo ñu mën a wan fi ñu jaar ba am ci solution wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan dankan ulaika allazina hada a hadahum allah fa bi hudahum muqtadi moo tax Sëriñ Tuubaa bu ñu bëggee wan nit ñuy defar nit ku baax ak delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawmal axir ci noonu mu indil ñu modèle murid saadix mooy nit koo xam ne ay yëngoom lenn farata ngir mën a jagal adduna ak àllaaxira ak defar suñu adduna ak suñu wéyoo ba mu jag modèle bii Serigne Touba andi ci adduna mu modèle Modou Sadikh ëpp na li ñu naan citoyen modèle ndax citoyen moom weesuwul adduna ak lu jagal waaye Modou Sadikh nag li mu la la si koo addine bind si waxiiru kon nañu xam li ñu sëriñ bi indil ak fi ñu jaarle bu baax ak leneen ak len ak ak ni mu gàggante adduna ci yoon wi ñu jaar ba defar modèle nit ku baax sëriñ bi it dafa indi tontu gag bu jaaxaloon waa adduna sëpp mooy nu ñu fexee ba tabax aw xeet wu mucc ayib loolu it ni mu defoon ca ca laaj bu njëkk bi rek la defaat mooy wala waru duuxu ila rasul wa ila ulul amri minhum moo tax mu wax ne ilallahi bil qurani wa sunnati allati hadadni saraftul kulla wal xalbu xaasio alquran nag li mu ci tontu mooy inna allazina amanu wa amilu salihati tuuba lahum xusna loolu nag day laaj déggin xóot ci alxuraan di laaj it mafhumul muxaalafa la nekk ci suuratul asri wal asri inna al insaana la fi xusr illa allazi wa tawaasaw bil xaq wa bi sabr loolu la sëriñ philosophie bi ko laytaay te taxawal société ci baasu imaan ak al amalu saalix ci maanaam mi gën a yaatu nga xam ne laa moo ne lépp lu baax lu yàlla gërëm te mooy jëme nit ki kanam te de te lépp luy jëme nit ki kanam da alaxira bàyyu ci dara kon sëriñ bi li mu ñu andil rawoon na ni xalaatkat yi di tërale ci àdduna danoo xàllal yoonu mucc yoonu defaru yoonu suqali ko tey ëggalëg ki ki fi def jalooru jëre ji nag mooy Sëriñ Tuubaa haasa xal wax ne misaalu murid saadix fi ibtidaa islaamihi sabi yëli si yaxaw min badni ummihi mu ne murid bu door a moo ko xale buy door génn ci biir ndeyam ñooyam mu ne xale bu door a dox am na amul am na lenn lu ko mën a doom ju mu tëg doom ju mu bët moo teg ci ku ne mu ne nday gi ne bu mu tëccee na gone bu ndeyam bare soow kooku xool xam ko daa bëgg na ngeen xam ne seen nday ji ku nàmp danga am kattan danga am xel kon toog leen ci seen day ba mat a fer waaye bu leen ferale bu leen dem di lekk suuf ndax kuy lekk suuf te bëggoo ko faw nga tawat te tawat mooy waral faatu suuf si ma leen di tere nag mooy àdduna ak i xoyom xoyom ak jëngi jëm ci ni ko moom Cheikh Mouhamadou Mountakha li ñuy fàttalee waxtu ne wax ndox ko ci màggal gi rek ci woote màggal gi ne ne ñëpp gën a dëgmal gën a dëddu adduna gën a dëgmal sëriñ bi sëriñ bi wax na kon ñam wu ma leen di digal ñaan koy lekk mooy bàyyi adduna ak la ci aju xam leen yaay joo gis ba soñoon doomam mooy kawe doom yëpp looloo taxit seen nday ji di leen digal li mu leen di digal ndax àdduna bu xasee ba dugg ci xol bala caa génn da nga sonn lool kon nag yam leen ci seen ndey te bañ te bañ a geesu feneen na ngeen na ngeen def ni doom na ngeen def ni ni doom di def ak ndeyam bu ko gisee du amati soxla ci keneen bu ko gisut amatul yitte jurul wër ko ba gis ko doom daa war di nekk ci pekk ndeyam yu dul gis ku dul seen ndey kon sëriñ bi wàccoon nag nun ñoo ci des képp ku sukk ne aslamtu nafsi ba jaayante war ngaa xam ne moomatoo sa bopp alxurru xurul maalam yatakalam baat de baat la daan laaj ca caddu ga te booba lislaam duggagu fi kon nag nañu bàyyi xel la yàlla waxoon saxaaba yi ne istara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna sëriñ bi dañuy war a gënal suñuy bakkan gënal nu suñuy alal gënal nu suñ lépp ndax ñoo ko jaayante ca ësal waaw foo bi ahdillahi izaa ahaatum wala tanxudul aymaana ba'da tawkiid ba'da tawkiidihaa fastafiru bi bay'ikum allati bay'atum bihi wa zalika huwa al-fawzul azim jaayante du baat yu ñuy wax di sànne ku ko def dangaa war a xam li mu laaj ak li mu nangu ak li mu nanguwul jël sifaatu saadixi muridi teg ci sa kanam boo ca xott rek xam ne tegootoo ci yoon wa daana wax ne bët bëtoor ba dañ ko jaawale ak unk ba ba far ko rey ngir nuroo ko kon nag ab murit mag ñi àndoon ak sëriñ bi nekk moom xumaag lu ne daj na ko lu ne daj nañu ko jafe-jafe bu ne daj nañu ko wama daaw foo waaye yàlla jaral leen ko sëriñ bi jaral leen ko ba tax ñu seen moroom yëpp ba am lu kenn amul li ko waral mooy waaye seen pëstéef jaral leen ko ngir xam ne li sëriñ bi bëgg dara mënu ko te am ay xeer lañu daa yonoon ndokk ba Touba eh, lu jege fukki kilomètre di doxe seeni tànk ak di toog carrière ba te boobu machine yi amagut kon waruñoo dem ba jamono neex tax ñuy fooye sunu te mooy làkku Tuubaa ba tax mu digal njabootu Cheikh Ibra ñu taxaw ba li fi sëriñ bi bëggul bañ fi am kon day wa wane na ne war nañoo gën a jaajuwaat bu baax te xoolaat sunu bopp te takkaat sunu laxasaay te ku ne fa man ala xayri ilahi dallaka fa firra minhu innahu adallaka kon nag fi may jeexale mooy jottali yónnentub sëriñ bi mu jëm ci mboolem kilifa yoon ak mboolem taalibe yi ci sant leen ci li na ko sëriñ Saliou Mbacké waaye daa wax ne ak murid moom du ci mukk ndax loolu da Serigne Touba àndi woon yi kon ñu gën a góorgóorlu ci ñaari yitte yii ci suñu kanam bu njëkk bi mooy daara Cheikhul Khadim ji nga xam ne def ngeen ci li waaye te loolu ñëpp ci ñëpp ci teg seen bët kon mu ngi koy fàttali ñëpp jeexale ko rek ci ñaaree ndigal li te mooy lu mu bëgg yaatal ci jumaayu Tuubaa ji nga xam ne sëriñ bi ko santaane woon nekk ku ci feeñ feeñ ba faw taalibe bu ku man incha allah ba nawet bu wàccee jàmm am na aw somb mu fi bëgg a def mooy ay parisol yoo xam ne defar nañ plan yi yëpp ba noppi bu nawet bi jàllee jàmm dana ko yëgal taalibe bi leeral leen lépp dana ànd ak ay climatiseur bu noppee lu mat fanweer a julliwaat jumaa bi premier jumaa ngi fi ndigal li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bàyyi woon moo tax moom bët ci fas fas ci yéene feeñal liggéey boppam bu ca toll rek dana ko yëgal ñépp kon ñi ngi jeexale foofu kàddu yi di ñaanal nag ñi nga xam ne ñoom la yàlla suñ borom def ñu faatu ci accident yi ndax loolu ni ñu ko waxoon ci képp koo xam ne ñëwoo ci wet siyaare sama rek na nga ko jéggal te defal ko tax àdduna ak alaaxira kon ku ci la ñëw rek bu bu sa bu sa bakkan desee na lu woon sa tax ak àdduna ak sa sa ak ëllëg taxu na ba ca desit mi nga masaw nit ci ndox mi ndax. bu université bi àggee at mii la bëggoon woo taalibe Sëriñ yëpp ñu jaayante ko. nañ defoon raay bi ak nañ def ma saylu ko jënaan waaye yàlla def nag bi nguur gi ñëwee jël seen yitte jëmu ko ci moo tax mu jël lépp lépp jébbalaat leen ko te leen ci diglu ngir xam ne ña nga ca te wax nañ ko ko mag ngi leen ci diglu moo rox soññu leen ci waaye ay ren ko bëggoon a tàmbali liggéey Sëriñ Tuubaa kon mu ngi sant taal bi yëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Mbacke xol yi sedd na guy xel na. kon nag ñu tàllal Cheikh Mouhamadul Mourtada moom mooy ñaan magam ju baax ji fi toog Cheikh Mouhamadul Mourtada moom Serigne Fallou na ñëpp tàllal amiin Mbakke Cheikh Mountakha yàlla fi yàgg amiin Mbakke Cheikh mu yàlla fi yàgg amiin Mbakke waaw ñu may kilifa yi ñu génn ndànk ñu may kilifa yi ñu génn ndànk xool yépp sedd na Cheikh Modou Bachir jërëjëf ñu amali li may naan mu génn waaye ñu si bunt bi nañu génn ba noppi ñu si bunt bi nañu génn ba noppi الحبس والسفر صلاة الذي في كل سهر في سفر شيخ منتهى يلا في يقتل شيخ منتهى سلام في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هنمال صلاة الذي في كل سير ñu may yoon wi kilifa yi ñu may yoon wi kilifa yi سهر ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير ما الأبس والسفر صلاة الذي وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن أبصى وسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبصى والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر bala moo wadd jongate di ko jël. Sëriñ Cheikh Bassirou Mbacké daanelee mooy naal yoo xamante ne bi yees lay doon rek yoo xamante ne bu bi dooree ko ci université bi ak yenn naal yoo xamante ne bi sëñ bi saa su nekk moo ngi koy woote woo tey jii nii lan moo ci war doon taxawaayu bokki taalibe yi yéen yéen a ngi ci daayira yi di liggéey ak ñoom moo xam ahlu café la bu mu ci mënti doon lan moo ci war doon taal taxawaay taalibe yoo xamante ne bi dina tax ba lépp loo xamante ne bi sëñ bi moo ngi koy euh, itewoo kenn ku ne mën nga koo joxal sa njaboot gépp ba ci sa waajur ya faatoog ñëpp ndax loolu ci jamonoy Serigne Touba ba léegi ñu di ko def ba fan yi ba mu toll nii ñun ñaa koy laaj waaye yaakaar naa maaseegut ci ñëpp di ko joxe comme ndigal li jóg na tey na ñëpp soññee kenn ku nekk foo nekk ci àdduna bi na nga soññee ñaar fukki ak juróom-ñett yi kenn wut taxaar sax ku la soññi comme ndigal li jóg na te murit moom ndigal rek. jërëjëf soxna si ñu ngi sant bu baax a baax di leen ndokkeel mu nekkoon soxna maam Issa Mbacke mi nga xam ne moo jiite ahlu kafe ñu gis seen taxawaay ci cérémonie bi gis seen taxawaay ci diirub màggal bi yëpp wax na ko sànq ci ay kàddoom mooy téeméer ak juróom benn fukk ak ñett jàng nañ ko ci mbaar mi nga xamante ne bii moo nekk ci buntu kër Serigne Fallou waa Hizbut-Tarqiyyah samp ko waaye nag ci kilifteefug Serigne Mouhamadou Xaban Mbacké mi nga xamante ne bii Serigne bi moo koy liggéey loolu nag day firndeel rek saa su nekk li Serigne bi waxoon ne euh, amul benn ittee boo xam Jean Baptiste Tine eh, yëkkati na ay kàddu eh, jiital ci taxawaay bi nga xamante ne bi moom la ci gouvernement bi fas yéene am ci dëkk bu sell bi Touba waaye tamit eh, taxawaay bi nga xamante ne bi moom la kilifa réew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye fas yéene am loolu nag fedd na ko jotaay bi wax ne rek li mu yéene ci dëkk bu sell bi di Touba defee ñu ànd ak sëriñ euh, monsieur le honorable député sëriñ Bara ñu gis ne cérémonie bi jib na gis nañu ren moo nekkoon 130e édition tey jii yan taxaw seetlu ak yan yëg-yëg nga am ci jotaay bi. waaw sant si yàlla bu baax parce que ku ne xam na ni message bu am solo la euh, ministre de l'intérieur wax jëme ko ci ndaw ñi ak yi nga xam mooy immigré Bassirou Abdou Khadre mooy tontam. sant na mboolem corps diplomatique yi wax na ak taalibe yi wax na ak jullit yi yóbbante na leen aussi wax na tamit li nga xam moo waral màggal gi wax na nattu yi nga xamante ne moom la sëriñ bi jag nga teel ba lii mu am mu am ko tey wax na ñi nga xam ñoo aju si ginnaaw sëriñ bi nañu nekk ay doom yoo xamante dañu war a nàmp seen waañu waajur wu jigéen sëriñ bi mooy seen waajur wax na jafe-jafe yi am malgré si ndox mi am na sëriñ bi nee na ñu daan ko def bàyyi na leen ak loolu pour ak ñu ànd ñoom ci yéene boobu noonu ngir ñu mën koo matale wax na tam ci liggéeyu université bi fi mu si toll wax na si liggéeyu jumaa ji nga xamante ni préparé na ko ba waajal ko ngir yokkute koo xam war na ko yokk kon jàpp naa ne tey daal gën nañu am mbégte si sëriñ Bass si taxawaay bi nga xam taxaw na di nga xamante ñoo doon ñëw te jot ñoo ak si tamit ñaanal na leen ndax fàttiwu leen wax na leen képp koo xamante ni jóge nga génn nga àddina ci ñëw gi nga fa doon ñëw da ngay texe parce que mooy mooy wala ne ku doon dem pour jixaar kon jàpp naa ni tey euh, mujjantal gi nekk loo xam ñun nga ay député la nekk doomu dëkk bi am nañ satisfaction totale mooy màggal gi daal àlla daw na la malgré que am na ay jafe-jafe ndox ak inondation yi boo xoolee corps diplôme yéex gi ñu yéex a ñëw yëpp mooy maam taw bu mu tawoon mais taw bi xéewal la parce que man mi waxee bi ma jógee sama kër une heure laa daw doog a ñëw fi mooy wane daal en li nga xam moom la wax rek mooy ñaanal jullit yëpp ñaanal taali bi ñu woote a dàq bii na parce que màggal gi gàccal nag ci lépp loo xam mooy wane jaar-jaar bi liggéey bi ak li wane li Serigne Touba def ba ñu murid yi nga xamante ak julli yi nekk biir réew ak bitim réew yëpp ñu ngi koy seetaan fu mën di nekk kon ñu leen sant baa leen gërëm honorable du ma la bàyyi yéen dagaan baatu askan bi nekk teewal askan bi gis nañ ne Touba taxawaay bi mu am département mbooloo yi nga xamante ne ñoo fi nekk li mu doomu adama te loolu bu ñu ko waxee dëkk bu sell bi Touba moo tax loolu nag gis nañu am na ay enjeu développement yu bëri yoo xamante ne bii dëkk bi da ko yittewoo dëkk bi da ko jagoo lu mel ni wàllum ndox lu mel ni wàllum assainissement lu mel ni wàllum voirie yi tey jii nii fan ngeen di séntu gouvernement bi ak bi nga xamante ne bii moom ngeen di fas yéene def. waaw fan leen séntu daal mooy liñ dig bi di ko population bi. parce que xëy na comme daawu ko gagné moo taxoon moom euh, bàyyi ko ginnaaw am na infrastructure yu bëree bëri yoo xamante ni matlu ko woon jëm na si mbirum ndox assainissement bi li nga xam moo jëm ci mbirum ruuj yi ku ne xam na ni tey autoroute fi mu yem am na deux fois yu waroon continuer waat def maanaam benn corniche yooyu yëpp defuñu ko kon ñoom jël na engagement ñi ngi doog ñoom aussi tamit koo xamante ni ay usine pour ndaw ñu mën am liggéey parce que amul usine yooyu yëpp yaakaar naa ne ay ay mbir yoo xamante ni bi am na si ñoom yaakaar te bu leen accompagner loolu doon ko mën sot parce boo gisee ñun ñu am ndigalu Serigne Mountakha pour jàppale leen lu mel ni moo ko waral parce ñu jàppale ni képp ku bëgg a defal Touba waruñu la contre parce que Touba am Touba tamit moo gën a kawe li nga xamante maanaam wax na ko sànq Touba dëkkul doonu dëkk boo xamante ne bii am nay usine lool lu jëm ci wàllum tàggat ndaw ñi ak jigéen ñi itam itteewoo na ko lool lu jëm ci wàllum assainissement lu jëm ci wàllum ndox waaye foofu sax gis nañ ne nag am na ak soppiku bu am ren ndaxte lu ci ëpp ci li nga xamante ne bii euh, diggé woon nañ matale ko du du loo xamante ne bii dina jaadu waaye dina dina mën a nekk waaye nag waaye nag du loo xamante ne bii euh, du mënta ñàkk xam naa dañu dalal benn invité euh, sëñ sëñ sëñ Cheikh Bara euh, moom mi nga xamante ne bii moom njabootug Serigne Sidou Mokhtar la bokk sëñ bi kon ñoo leen di jaajëfal baax a baax di leen ndokkeel yéen Serigne Cheikh Bassirou Euh, ki fi teewal gouvernement du Sénégal muy ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Tine yëkkati nañ ko jotaay bi nu ngeen gisee édition 2024 bi di màggalub Touba. waaw man moom euh, li may jëkk a def mooy sant sant yàlla sëriñ bi ndax loolu la wootee bis bi te dafa wax ni bu ma demutoon ci bis bi li ngeen di wut si ci man duma leen ko mën a defal ndax loolu ci bis bii laa ko mën a jële kon li ñu njëkk a def rek mooy sant yàlla sëriñ ci ci bis bi ak ak jullit ñi ñëpp ndokkeel leen ci itam waaye ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla discours bi déglu nañ ñaar yëpp sëñ Bass li mu def def na ko digle la war a def ci turu Cheikh dul Mountakha tere la war a def ñaax taalibe la war a def won leen sëñ Touba ni leen lii la def te teg ko ci mbind te tam bañ a ay waxu mbett war def def na ko li ñëpp séntu ci moom it def na ko li sëñ Tuubaa moom itam li nga xam